kon li nga xam ne mooy woote président Macky Sall mu tuddee ko dialogue man li ma jàpp mooy manœuvre politique la waaye tey la ma doon wax ba ma PDS di topp rek singali ma ne ma voilà Aminata Touré moo tax ñun duñu ànd ak opposition moo tax duñu bokk F24 euh, la ma doon wax tontu woon mooy dana feeñ yi ndax lii ab deal la deal bi nag tey la feeñ ñoom ak président Macky Sall ñoo bokk di organiser koy seet lii ñu tuddee dialogue PDS dana ne waaw président Macky Sall bu ko conseil constitutionnel mayee war naa mën a nekk candidat loolu moom danañ ko dégg bu njëkkee dañ naan nañu bàyyi rek conseil constitutionnel moom mu seet ñi war a doon candidat.